salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu salaam ci bis bu rafet bii tey fekk ñu ci barab bu rafet bii yiw te jekk ñëw fii fekke jeexitunu fulk bi ñuy ziyaar suñu sëriñ sëñ Muntaxa xalif général yàlla na fi yàgg te wér ziyaar sëriñ Fàllu Basiru mi nga xam ne moo jiite fulka bi di rafetlu ñaan ngeeg taxawaay bi te di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér sëriñ Muntaxa ñu di ko sant ak gërëm parce que taxawaayam ci réew mi tax na ba muy unifier citoyen yi li tax ma taxaw fii tey doon candidat loxoom jógu ci ma di ko gërëm ak a sant parce que moom nag ci réew mi lépp lu fi lëj lu fi problème fexe na ba loxoom dem ci Mbàkke yàlla na ko fi yàlla bàyyi suñu visite tey fii symbole bi mu am mooy li nga xam ne moom la diine ji ak ñi fi nekkal diine ji ak ñi yor daara def pour consolider nation bi boole leen ci li ñuy def lu am solo la bala ñoo def suñuy def ak suñu paree def dans une nation gëm-gëmu nit yaakaaru nit dafa am solo te réew mi fii mu tollu muy borom jàngu bi muy ñun ñi nekk ci lislaam diine lislaam bi suñuy kilifa ñooy suñu doole may wax ne suñu teewaay fii nag engagement la boo xam ni dafa signifier ni daañu dëgëral diine daañu dëgëral aada gi daañu dëgëral askan wi ci li nga xam ni moom la gëm moom la yaakaar pour que ensemble ñu liggéeyandoo réew mi ma di wax nag ne bi ñu demee Ziguinchor aw Tamba ma waxoon ko maatam dama ni réew mi développement bi li koy gën a accéléré mooy defar raay bi ci loolu dañuy inspiré wu ci pas-pasu communauté mouride bi nga xam ne raay bii ñu taxaw tey seen pas-pas la seen doole la seen yéene la muy inspiré 2000 kilomètres yi nga xam ni moom la ñu bëgg a def mu doon ay corridor ferroviaire dégg naa sax am na ku ma tontu ni ma dama xamul njëgu raay moo tax man ba may toppatoo état xaw ma fan la nekkoon en tout cas ñu ngi rafetlu tey lii nga xam ni moo fi ne lii nga xam ni moom lañ fi fekk nga xam ni modèle la bu ñuy inspiré maa ngi leen di gërëm leen sat